léegi nak pour ñu mëna ar mag ñu ci suñu kër gi mëna ar ñi nga xamné ne dañu dëkk ak ñun suñu biiri kër yor yenen feebar yi nga xamante ne bu fa bu laalee mbas mi rek bo moytuwul yalla dina la yobbu ah ñu mëna ñëw lal ay tëralin yo xamante ne quartier bu ci nek ASC bu fa nek ci 409 ASC yi 33 zones yi ku ci nek di nga defar sa plan d'action. ñun bu ñu deful activité ñu am recette ndax nos budgets sont votés en équilibre recette dépense donc à la fin de la saison doo dese dara. li nga mun def mooy nouvelle saison bi activité yi nga daan mën ne moom moo la daan may rentrée d' argent amatuñu ko li fi des mooy financement yi nga euh, subvention yi nga xam ne mairie yi dañ ko daan jox mouvement nawetaan bi ñun très tôt teeloon nañu alerté maintenant li ñuy demandé te préfet yaakaar naa mairie fi intervenir bi yombalal nañu ko subvention yi dañ koy jël orienté ko sur la base du plan d' action ak ay comité de suivi yoo xamante ne dañ koy teg pour ASC bu ci engagé wu wax dara ñu mën a ñëw xayma natt ko xam ndax li nga waxoon def nga ko parce que nag actuellement suñu avenir moom moo menacé wu xarañu sénégalais bu ñuy wax homo sénégalais si suñu xarañ mooy yàlla daf ñuy may situation yi ñu nekk rek mën nañ ci génn te man ma ne li tax ñu génn ci colonisation génn ci esclavage war nañu mën a dimbali ba ñu génn ci mbas mi donc ñun war nañu mën a fekk ASC yi ci yeneen créneau def nawetaan autrement en sensibilisant pour que vraiment mbas mi jóge ci département Mbour mais jóge ci Sénégal yi